alaykum suñu mbokk internet yi amati mbégte jàkkaarloog yeen ci seen émission le regard de Momar di len nuyé ñëpp di sante sant na nak suñu mbokk internet yi ñi top depuis France Italie Espagne États-Unis ba ci Canada di béral nak nuyo ño xamni ñi ngi fi ci biir réew mi té ñomit di ñu xel ku ci melni Pape Alé dëkke fële ca Wakaam Jaaji Jeng moom it ñu koy sant di ko gërëm ci topp bi moom Mamadou kamara moom it ku ñuy faral di topp la Sadio Gueye di sama xarit bu yàgg dëkk fële ci Thiès nekk fa un grand responsable ak Awa Camara ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen gërëm ci topp bi ak bàyyi xel bi fas yéene nag tey mbokk yi waxtaan ak yéen ci mbirum terrorisme mbirum terrorisme nag ci yeneen réew lañ ko daan faral di dégg baaxoowuñu woon ci suñu réew di wax mbirum terrorisme même bu fekkee ni sax demoon na ba dugg ci réew yoo xam ni ñi ngi bokk ak ñun Afrique sawu jant réew mu ci mel ni Mali réew mu ci mel ni Niger Tchad Burkina ba même Côte d'Ivoire mbirum terrorisme dugg na fa waaye ñun dégg rek lañ ci amoon waaye nag mbokk yi seetlu bi benn la ci jamono yi ñu génn mbirum terrorisme xaw na jaaxal askan wi parce que liñ koy tudd bëri na dem na ba indi njàqare ci askan wi boo leen dee xool ñi ëpp ci ñi nga xam ni ñu ngi toll ci junni ak juróom benn fukk ak ñaar détenu politique ñu ci ëpp ñu ngi leen di toppee mbirum terrorisme

ku ci mel ni itam Ousmane Sonko nga xam ni mooy njiitu Pastef bi nga xam ni ci ndogalu ministère de l'intérieur ak président de la République dakkal nañu ay activité am moom it ci juróom-ñett chef d'accusation yi ñu ko toppee am na ci bi ci gën a fës laalaale moom it ak mbirum terrorisme dañuy ànd déglu procureur tuuma yi nga xam ni jël na ko ngàdd ko ci ndodd Ousmane Sonko te mbirum mu fës ci lool car sa procédure est pratiquement bouclée et à cet effet il sera poursuivi pour appel à l'insurrection association de malfaiteurs atteinte à la sûreté de l'État complot contre l'autorité de l'État acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. ci tuuma yi nga xam ni teg nañ ko ci Ousmane fonko mbirum terrorisme am na ci solo lool muy loo xam ni ñu ñëpp a ko seetandoo euh, dañu jàpp nag ni li yëpp li ko waral mooy ñaari loi yoo xam ni juin 2021 lañ ko yëkkati. yóbbu ko assemblée voté ko muy loi yoo xam ni li ci nguur gi jublu woon mooy ginnaaw jihadisme dugg na bu baax ci Afrique sowu jant ñun naka lañuy ñage réew mi ba loi contre le terrorisme ñu renforcer ko ba nga xam ni dinañ mucc ci mbirum terrorisme ak mbirum jihadisme looloo taxaw na jóg loi bi te ci fàttali mbirum terrorisme article 279 du code pénal mom moko ko lidjenti loi bo xamni ne sax dem nañ ba 2016 ñu indi ci ay coppite renforcer ko ngir gëna a taxawayu Sénégal ngir nu muy mbirum terrorisme ba ñak ci bopam waye lolu téréwul bi ñu ba juin 2021 gouvernement bi wat yeneen ñaari loi jëm ci mbirum terrorisme ni da koy renforcer ci jamono yooyu mbokk yi organisation bu ci melni Human Rights Watch artu woon na sénégalais yi ni kat nañu def ndànk deug le ga gouvernement Sénégal wax na dëgg bu né day renforcer loi contre le terrorisme pour ñak réew mi waye nak nañu moytu mu doon porox ndoll bo xamni dañ ciy jaar képp ku yëkkateeti discours politique maa ngay def activité pacifiste wala sa yëngu-yëngu syndicat ñu mën a ngàll ci sa ndodd mbirum terrorisme loolu la Human Rights Watch waxoon parce que dañu seetli woon jamono yooyu que ni mbiru loi yu bees yooyu dafa am coppite yu am solo yu mu indi dugal ko ci code pénal bi ci njëkk te boobu jamono Romain Rolland Wade doon ko fàttali mooy dañ ni woon mën nañu toppe léegi mbirum terrorisme képp koo xam ni xirtal nga askan wi ci ñu def lu ñu mel muy benn waaye la jaaxaloon Human Rights Watch mooy kenn leeralul lan mooy xërtal nit ñi te ñu def acte terrorisme muy benn ñaareel bi li beesoon ci loi yooyu mooy dañ ni woon ki nga xam ni njiitu syndicat la wala njiitu parti wala njiitu syndi organisation bu mu mënti doon mën nañ ko toppee ay délits yoo xam ni parteem moom moo ko def wala organisation moom moo ko def lu ni mel boo leen seetloo bu baax moom lañu teg ci ndoddu Ousmane Sonko leneen li nga xam ni itam lu bees la woon ñëw ci ñaari loi yooyu mooy dañu permettre woon police sans mu sàkku autorisation juge di yëddu nit di ko surveiller di xool ay appel téléphonique lu ne mu def ko parce que loolu laata ñuy voté loi yooyu police ak gendarmerie mënuñu ko woon def lu dul ñu am ci ndigalu juge yooyu yëpp nag bi mu dajalew ak leneen loo xam ne ñëw na dolliku ci te Human Rights Watch loon ci xel sénégalais yi muy ñaari loi yooyu sur le terrorisme dañu jël mbirum terrorisme yaatal ko ci bépp acte boo xam ni yoon jàpp na ni mën na nasaxal ordre public muy benn ñaareel bi itam ñu ni képp koo xam ni yaa ngi yëngutu ci lu mel ni noonu mën na la ko toppee mbiru terrorisme ba ci sax li woy xarale yu bees yi muy nouvelle technologie de l'information et de la communication loolu sax mën nañ ci sukkandiku top ci nit ci mbirum terrorisme ba ci association de malfaiteurs muy yaatal boo xam ni yaatal nañ ko lool mbirum terrorisme ba képp koo xam ni yëngu nga bu neexee waa yoon ñu laaxaale ci say mbir mbirum terrorisme di la ko toppee te bu ñu la toppee mbirum terrorisme ben, di nga teud kaso ñaareel bi meun nga yag lool kaso ñuy enquête dossier di ko gustu te ci genn loolu moy li nga xamni ni lu tuké ci loi contre le terrorisme bi nga xamni voter voté nañ ko renforcer loi contre le terrorisme te mu indi lool ci jamono yi njàkkare ci askan wi ndax ñi ñukoy topé na lool bari na lool te kuñ ci da ngay tëdd lu yàgg kaso ñuy lijjanti say mbir lii mooy li bees ci loi contre le terrorisme ñu koy toppe donc ñu bëri ñoo xam ne tey jii ña nga ca biir kaso pourtant de loi boobu li muy am njeexital lool ci doxalinu réew mi ba tax tey ñu bëri tëdd kaso bañ koy voté lëm bi ko voté ci ay député yegguñu sax ci xaaju député yi ci loi bu mel noonu may fàttali ni que juróom-ñaar fukki député dong ñoo ko voté woon ni wii fukki député ak benn voté ko ni ñoom ànduñu ci boo boolee seen lim ñu ngi toll woon ci juróom-ñett fukk ak benn député maanaam nekkuñu sax xaaju député assemblée parce que xaaj bi ci. téeméer ak juróom benn fukk ak juróom député xam ngeen ni lu toll dong ci e, juróom benn juróom-ñetti fukk ak benn matul li mu xaaj bi wala daanaka ci lay yem wala mu xaw ko jege loolu nag jaaxaloon ñu bëri parce que loi bu am njeexital ci dix-neuf million de sénégalais lu toll ci juróom-ñetti fukki nit rek voté ko. te sax fukki yéeg benn yi ànduñu ci dafa nekk mbir mu doy waar surtout que nag xam nañ ñu bëri ci député yi ni ñu jàppe seen liggéey am na ci ñoo xam ni ñoom lépp loo xam ni tukkee ne ni projet de loi jóge ci gouvernement bi ñëw ci ñoom dañuy gëmm voté ko du ñu xool ba njeexital la mën a am ci askan bi am na ci ñeneen ñoo xam ne itam maa mën a yam ñoo ngi mën a yem seen jàng bënnul ba nga que loi yi di indil sax duñu ko duñu ko duñu ko bu baax loolu mbokk conséquences yi ñu am ne de biñ koy ci 25 juin 2021 amoon na gaa ñoo ni euh, ñaawoon nañ xalaat na ci loi loi

sous prétexte que dañuy xeex terrorisme waaye ñu bëri fekk ci woon ko ci xeex boobu ba nga xam ni manifestation bi bëriwul nu ay nit jàpp noonu ci woon benn par benn daanaka matul fukki nit waaye après ci mujjanteel gi ñu bàyyi leen ñu dem bañ ci tegee quelques fan maanaam le 30 juin ñu ngi ko voté woon vingt cinq juin 2021 le 30 juin am na way kuddee gi yu un recours a ko ci conseil constitutionnel pour mu neenal loi contre le terrorisme boobu ñu itam amuñu ndam parce que conseil constitutionnel daf leen gàttaloon li ñu bëggoon ci jamono donc lu ne wax nañ ko ci ba ci ku député Cheikh dafa ay la loi dañ koy xeexee terrorisme waaye bu ñu xoolee ba ci biir la ko jaxa jox dëgg dëgg dëgg nekk lu dul xañ opposition bi seen yenn àq ak seen yenn yelleef ba bu ñu ci tollee wala wàcc ci mbedd mi war a fësal seen naqar seen kii ñu toppee leen mbirum terrorisme gàll seen ngàll lu nekk loolu nag mbokk yi dafa mel ni moo am te fi mu ko sukkandiku woon mooy boo leen dee seet

ci événement de mars 2021 ñu teg ci diir président Macky di recevoir ndawu Sénégal fii ci centre de conférence Diamniadio yëkkati fa nag benn kàddu ni dinañ taxaw ci mbiru xëyi ndaw yi te la ñu génne woon programme boobu lancé ko dinañ taxaw ci seeni jafe-jafe waaye nag maa ngi leen di yëgal ni li fi xewoon mars 2021 du fi xewaat waa loolu bu fekkee président de la république daf ko wax ñu teg ci ab diir en juin 2021 mille mu voté loi bu mel ni bii nga xam ne mooy loi contre le terrorisme def ci ay mbir yoo xam ni képp koo xam ni yaa ngi yëngatu mën nañ laa toppi mbiru terrorisme loolu mbokk yi moo waral li ñuy dund waxuñu nag ni que lenn ci doxalinu. ñu nekk ci kujje gi mënuñu koo méngale ak acte terrorisme parce que gis nañ la fa xewoon fële ca université nga xam ne jamono yooyu gis nañ nañu caxat caxate université ba lakk ko gis nañ itam li fi xewoon barki dem moo njaay fii ci yaraax nga xam ni foofu itam la fa xew muy ak cocktail molotov yu ñu jël tànne ko ci ab kaaru tata nit mënu ko bañ terrorisme ministre de l'intérieur Antoine Je dois dire que lors de cette attentat terroriste, nous avons déploré cette victime dont deux corps sans vie et cinq blessés graves. Nous présentons nos condoléances les plus émues au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky aux familles éplorées et souhaitons un bon rétablissement aux personnes blessées qui ont été donc affectées par euh, euh, l'incendie criminel qui a été occasionné par ces malfaiteurs. Au-delà, et selon les premiers renseignements recueillis sur place, ces sept personnes encaboulées qui ont entouré le véhicule ont aussi

moog la xewoon université comme ni ñu ko waxee sànq suñu kàddu waaye xeex terrorisme euh, warut a firi ni nag am na ay àq ak yelleef yoo xam ne ku jege da ko moom ci mbirum démocratie maanaam yëkkati ab discours politique maa nga def léeg-léeg manifestation pacifique même bu fekkee ni sax léeg mu am ay débordement boo ko jëlee rek boo ko méngaleeg ay acte terrorisme ba lu yëngu nga laaxaale ko ci dugal ko loolu defe naa du li gën ci wàllu démocratie wax nañ leen fa contre le terrorisme mu jóge article deux cent soixante-dix-neuf ba nga xam ni moo ko tënkoon nga xam ni 2016 dañ ko indi coppite ba ci ñaari nouvelle loi yi ñu indi en juin 2021 ak coppite yi bëri yi nga xam ni indi na ko ba mbirum terrorisme ñu yaatal ko lool am ñu ci bàyyi loon xel sénégalais yi waaye dafa mel ni boobu bàyyiwuñ ci xel mel ne ni nag njeexital yi moom la ñuy dund actuellement ak ñi nga xam ni lim bu takku la ci ay détenus politique yoo xam ni toppe nañ leen mbirum terrorisme te ñu yàggee lool ci kaso bi mbokk yi boo leen ñu dégloo bu baax di ngeen xam ni lii mooy suñu solo émission bëgguñoo yem rek ci wax mbirum actualité yem ci dañuy bëgg bu mbir xewee ñu deltu ginnaaw xool ca dëgg-dëgg lan moo ko waral parce que tey njàqare am na ci askan wi ak mbirum tëradu mel ni tulleeg màlle waaye bu fekkee déglu ngeen ñi ci biñ tàmbaleek wax ba léegi xam ngeen nag lan moo waral mbirum tëradu mu ubale askan wi xam ngeen itam yan coppite lañ ci war a indi pour lii nga xam ne ñu koy dund te mu ëlëm ñu bari ci askan wi ñu bañ koo dundati bu ko defee rek dañuy dellu ca la Human Rights Watch waxoon ni gaa nanguloon na état du Sénégal mu ñag boppam ci wàllu terrorisme renforcer loi contre le terrorisme waaye nag na ko moytu def porox lodd pour di ci régler ay problème politique balaa joon sax ni am na yenn ci fànn ci loi bi dañ ko waroon a amender maanaam xool nuñ ko tëggewaatee soog koo yóbbu assemblée voté ko waaye boobu jamono kenn deful lu ni mel ba nga xam ne tey njeexital yi ñu ngi koy ñu jàll nag suñu ñaareelu thème bu tey muy mbirum Ousmane Sonko ak état du Sénégal ñu jàpp ni mbir mi mi nga bëgg jéggi dayoo parce que Ousmane Sonko mu ngi ci mi ngi bëgg def nag ab diir am lum ko indil ci lompoñol ko ci sonal ko lool ba fi mu ne tey jii mi ngi réanimation maanaam sobotage mbuy mbir nag bu doy waar yamul sax ci moom rek parce que laaxaale na ñoo xam ni itam dañ leen jàppandoo wala sax lu jiitu ñu koy jàpp ñoom ñu jàpp leen ba noppi ñoom it ñuy xiifal seen bopp waaye bu ñu dellusee ci mbirum Ousmane Sonko xëy na nit mën naa bañ a partager ak moom stratégie bi nga xam ni moom la tànn ni moom la koy xeexe li nga xam ne yaakaar na ne dañ ko koo teg te jaaduwul muy xiifal boppam grève de la faim li ci ëlëm ku mel ni man mooy grève de la fin bi xëy na daf koo teel a tàmbali sax parce que bu ñu dee fàttaliku bi ñu ko tegee loxo ba yóbbu ko ci juge bi ñuy xool mbirum garde à vue am déet ca la tàmbali woon grève de la faim mu doon méthode boo xam ne nag daan nañ faral gis nit sax di ko def waaye bu ko dee def day dem ba sës xam ni pexe amatul mu soog a dugg ci xiifal boppam waaye moom da koo teel a tàmbali muy nag lu doy waar ci méthode xeex yemu ci Ousmane Sonko bi bu demee ba laati kaaf bañ na itam ñu defal ko ay soins médicaux maanaam ñi nga xam ni ñooy saytu wér-gu-yaramam xaw koo jàppale tuuti ci ay soins yi ñu ko def bu ko defee mu am ndëgërlaay ba nga xam ni mbir mi du ko laatikaafal lool loolu itam mu lànk ko kon xam ngeen ni kooku muy Ousmane Sonko mu ngi ci ab position radicale boo xam ni lu ne mën na cee tukki waaye position radicale boobu mu am moom lañu ñu nemmeeku itam ci yenn beneen wàll wa muy ñi nga xam ni ñoo ko téye maanaam nguur gi ak yo mbirum yoon ba bu yàggul rek gis nañ bi nga xamee ni ay universitaire ay intellectuel am nañ pétition bu ñu def ñu ngi toll ci lim ci cent quarante et une personnalité am ci ñoo xam ni sax nekkuñu Sénégal ñu ngi ay bitim réew ñu ràññeeku ci wàllu xam-xam wàllu bind ku ci mel ni waaye Serigne Ka ku ci mel ni professeur Serigne Diop nga xam ni yore woon na mbirum yoon fii ci réew mi ñooñu ñëpp bi nga xamee ni bind nañu ñaan mbiru yoon ñu bàyyi bàyyi ndéglukum Ousmane Sonko benn kenn tontuwu leen ca wàllu yoon ak te nañ bindee waaye sax tontu bu safa safa safa saf la ñu am jóge ci ñi nga xam ni ñooy waxal waa nguur gi amul luñ leen yàqul loolu di wane ni que boor boobu fa ñu jàpp ña fa téye ñaareel bi itam bi nga xamee ni am na benn délégation Yewwi Askan Wi bu demoon ziyaara ji sëñ taxaa yàlla na fi yàgg te waxtaan ak moom ba yegg ci mbirum Ousmane fonk mu am tàndarga gu mu yëkkati jox leen yebal leen ci moom pour bu ñu demee ñu jox ko ko gis nañ ni bi ba ci ëllëg sa dem sàkku gis Ousmane Sonko mënu jote ci moom lu ni mel it moo dal ay avocat dalit même médecin am bi koy traité kon xam nga même bu fekkoon ni yaakaar juddoon na ci ni tàndarma googu kilifa gu tedd googu jël yóbbante Ousmane Sonko bu yeggee ci moom dina jëfe ndigal ba daqal grève de la ba ci jëmm yàlla tey jii yeggagul ci Ousmane Sonko loolu itam di luy wane radicalité boo xam ni ci nekk na ca boor bi nga xam ni ñoo téye usmaan sonk ba ci démb génn bi nga xam ni avocat état bi def nañ ko ñoom it ña ngay tengal meluñu nit ñoo xam ni pare nañu pour bàyyi fi ñu téye waa mbokk yi bu fekkee Ousmane Sonko téye na fi mu téye ni day xiifal boppam lànk soins médicaux yu ñu ko mën a def ci mbirum wér gi yaramam pour mu am nu mu néew noonu am ndëgër laay ca weneen wàll wa ñu gis ni foofu tamit ñu ngi téye tengal kenn amul loo bàyyi as lëf ci fi nga téye mbokk yi bu lii non seulement Sonko ak état bi dinañ dugg ci gouta waye ba moytul sax ñu duggal réew mi ci gouta go xamni kenn xamul kañ lay dak parce que nak ñaañu ñuko yàlla waye bu bakkan roté ci li nga xamni moy xifal bo xamni ñu ëpp ci détenu wala ñu bari ci détenu yi ñu ngi koy def ba ci Ousmane Sonko kenn xamul ban conséquence le mën am ci réew mi xanaa rek di wax comme ni ko oustaz Aliou Sall di waxe yàlla ñu yàlla yërëm ndax bu ñu yàlla yërëmee dina tàbbal yërmande ci réew mi ba nga xam ne ñu ñëpp li ñuy ragal xëy na mën nañ koo bañ a gis mbokk yi lii lañ doon indi loon tey ci seen émission le regard de Momar Diong di leen sant di leen gërëm ci topp bi ak bàyyi xel bi di leen toññ itam ci ngeen wéy di partager vidéo yi ak itam di abonné di leen jox donc bu vous ma bëri di ñëw wasalaam